الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum sunu mbokki auditeurs yi mbokki Sénégal seen mbokk seen xarit seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall moo dikkaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi émission bi nag dafa nekk émission boo xam ne mooy daanaka bi mujj wala boog bi ñëkk ci at bu bees bi nga xam ne ñu ngi ciy dugg muy 2019 ñuy sant yàlla sunu boroom mi nga xam ne moo ñu may ñun ñépp ñu mën ko fekke mu yokk sunuy fan ba ñu fekke at bu bees bi may ñu wérgu yaram may ñu lu ñuy suturloo kon nañ ciy sant bu baax aji sax ji yàlla sunu boroom ndaxte bu ñu mënee moom la bu ñu noyee moom la bu ñu nokkee moom la at bii nag duma ko tàmbalee lu dul ay ñaan ñaan yoo xam ne dama koy jëmale ci askanu Sénégal yépp te amul xàjj ak seen amul boddi ñaan gi ñépp ci bokk ñépp lañ ko yéene yàlla sunu boroom dafa ñu wax ci téereem bu sell bi ci biibal bi ci kóllëre gu bees gi ci bataaxal bu njëkk ba ñu jagleel Timote ci aaya ñaar saar benn ba ñaar mu ne fii laay tàmbalee nang maa ngi leen di dénk ngeen yóbbu ñépp fa kanamu yàlla ci ñaan ay tiiñu ak ay ngërëm yàlla sunu boroom moo ñuy wax ñun ay jaamam ne ñu kat mi ngi ñuy dénk ñu yóbbu bépp mbindeef bépp jaamam ci kanamam ci kaw ay ñaan ay tiiñu ak ay ngërëm kon li nga xam ne mooy sunu warugar mooy di ñaanal ñépp di ñaanal askanu Sénégal di ñaanal sunu bopp moo tax ñi ngi ñaan yal na yàlla sunu boroom ci darajey Yeesu Kirist wéyal yiwam ak yërmandeem ci képp ku yeewoo fii ci biir Sénégal di ñaan yàlla sunu boroom ci darajey ku sell ki Yeesu Kirist yal na yàlla sunu boroom wéy di barkeel askanu Sénégal góor jigéen mag ak ndaw yal na yàlla sunu boroom wéy di ñu won boppam di ñu jàngal boppam di ñu teg di ñu xiir ci jëf yu rafet jëf yu koy yu yu ñuy naw jëf yoo xam ne day màggal turam moom mi nga xam ne moo ñu sàkk te li nga xam ne la séentu ci ñun ni mu ñu ko waxee ci téereem bu sell bi mooy ñu dund dund koo xam ne dana ko màggal léegi nag war nañu xam ne daanaka lépp mat na lépp mat na bu ñu xoolee àddina ni muy doxee bu ñu xoolee li nga xam ne moo xew ci biir àddina kon xam nañu ne bésu pénc ba bésu layoo ba soreetul moo tax ñuy ñaan yàlla sunu boroom yàlla na ñu xiir ci boppam ci daraja yi Yeesu Kirist di ñaan yàlla sunu boroom yàlla na saxal jàmm ci biir Sénégal ndaxte moom moo ñu wax ci téereem bu sell bi nee na li nga xam ne moom la séentu ci ñun mooy ñu dëkk dëkk ak jàmm yàlla sunu boroom nee na li nga xam ne moom la séntu ci ñun li nga xam ne moom la bëgg ci ñun mooy ñu dund ak jàmm jàmm dox ci sunu biir moo tax mu ne kon nag na ñuy wut lii indi jàmm mu wax ñu ko ci téereem bu sell bi ci bataaxal ba ñu jagleel waa Rom ci aaya fukk ak ñeent ba saar fukk ak juróom ñeent nee na li nga xam ne moom la séentu ci ñun mooy ñuy wut li nga xam ne day indi jàmm yàlla sunu boroom di wéy di ñu wax ci téereem bu sell bi ca bataaxal ba ñu jagleel waa Rome ca aaya fukk ak ñaar saar fukk ak juróom ñett nee na wut leen a juboo ak ñépp wut leen a juboo ak ñépp loolu lañu yàlla sunu boroom wax kon mi ngi ñuy soññ ba léegi ñu dëkk dëkku jàmm jàmm dox sunu diggante kon ñuy ñaan yàlla sunu boroom yàlla na jàmm sax ci biir Sénégal sax ci biir diiwaan yépp ci biir Sénégal sax ci biir ñépp ñi yewoo ci biir Sénégal ci barke Yeesu Christ yàlla sunu boroom wéy di ñu wax ba mu nañu fii laay tàmbali nag maa ngi leen di dénk ngeen yóbbu ñépp fa kanamu yàlla ci ñaan ak tiiñu ak ay ngërëm da ca yokk ca saar ñaar ne ñaanal leen buur yi ak kilifa ñépp ngir ñu mën a dund dund gu jàmm dund gu dal ànd ak ragal yàlla ak fayda yu mat yàllaa ngi ñuy soññ di ñu dénk naan ñaanal leen seeni kilifa ñaanal leen buur yi ngir ñu mën a am dund gu dal te am jàmm yàllaa ngi ñuy wax naan ñu ñaanal sunuy kilifa ñaanal ñi nga xam ne ñoom la teg ci sunu kanam loolu mën nañu jural dund gu dal dund gu ànd ak jàmm kon ñi ngi ñaanal ñi nga xam ne kilifa lañu fii ci biir réew mi ñi ngi ñaanal ki nga xam ne moo jiite réew mi ñi ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoom la toftal ci wetam ñi ngi ñaanal képp koo xam ne kilifa nga fii ci biir Sénégal ak fànn boo ko doonee nag ñi ngi ñaan yal na yàlla sunu boroom barkeel su dund ci daraja Yeesu Kirist te barke boobu law ba yegsi ci ñun jural ñu dund gu dal jural ñu jàmm ñi ngi ñaanal njiitu réew mi di ñaanal ñépp ñi nga xam ne ñi ngi ci wetam doon ay kilifa mu jox leen ndombal tànk ngir ñu jàppale ko ci sas bi fii ci réew mi bàyyiwuñ ci kenn ñi ngi ñaanal bépp kilifa bu yeewoo fii ci biir Sénégal muy kilifa diine muy kilifa aada ak kilifa goo mënta doon ñi ngi lay ñaanal ci jëmmi Yeesu Kirist yal na yàlla sunu boroom barkeel sa dund yal na la may dal yal na la may jàmm ba loolu law wàll si ci ñun ñu am ñu ñun itam dal ak jàmm mbokk yi atu 2019 bi ci lañu jëm ci ay élection ci lañu jëm ci ay jongante jongante njiitu réew mi ñuy ñaan yàlla sunu boroom ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm te mu doon ndamu Sénégal di ñaan yàlla sunu boroom ñu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm te mu doon ndamu Sénégal ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ñi ngi ñaanal itam sunu mbokk yi nga xam ne ñi ngi bitim réew di daan seen doole dañu xam ne loolu lu am solo la ci koom-koomu Sénégal ndaxte doomu réew mi ñu ci bari ñi ngi bitim réew di liggéey di daan seen doole di yónnee fii ci biir Sénégal yore fi ñu bari kon ñi ngi leen di ñaanal fa ñu nekk ñu am fa jàmm lañuy liggéey itam mu barkeel di ñaan yàlla sunu boroom lañuy liggéey ñu teg ko ci yoon mu dëppoog la nga xam ne ña leen dalal dëkk ba ñu nekk nangu nañ ko daganal nañ ko ñuy ñaanal itam dëkk yooyu ñu nekk ndaxte yàlla sunu borom moo ñu ko wax ci téereem bu sell bi ca xaaj ba ñu jagleel yonentam jérémi ca aaye ñaar fukk ak juróom ñeent saar juróom ñaar nee na wut leen jàmm dëkk ba ngeen nekk ndaxte loolu itam mooy seen jàmm kon boo nekkee doxandeem nekk ci ab réew da ngay wut jàmm réew jooju di ko ñaanal yàlla di ñaan jàmm foofu ndaxte nee na loolu moom mooy seen jàmm kon ñi ngi soññ sunu mbokk yooyu nekk bitim réew ñuy wut jàmm réew yooyu ñuy nekk te buñ leen fàtte ci ay ñaan ñuy ñaanal réew yooyu ñu am jàmm muy fii ci Afrique wala muy ci Europe wala muy ci Amérique ñuy ñaanal dëkk yu mel ne Côte d'Ivoire Gabon di ñaanal Mali mii nga xam ne sori wuñu te doomu Sénégal a ngi fay daan seen doole di ñaanal réewu tugal yi di ñaanal France Allemagne di ñaanal Brésil di ñaanal Amérique nga xam ne ku jóg fa nga bëgg a dem te ñu bari fa ay mbokk yoo xam ne ñi ngi fay tedd di yónnee alal gu takk fii ci Sénégal muy yokk sunu kam-kam kon ñi ngi ñaanal askanu Amérique ñi ngi ñaanal Amérique ñi ngi ñaanal njiitu réewu Amérique ñi ngi ñaanal képp kuy kilifa nekk Amérique nekk France nekk Allemagne nekk Côte d'Ivoire nekk Gabon nekk Centrafrique nekk République démocratique du Congo ñi ngi ñaanal dëkk yooyu yépp di ñaanal seeni njiit yal na leen yàlla sunu borom barkeel ci jëmmi Yeesu Christ ndaxte yàlla nee na dee leen ñaanal dëkk ya nga xam ne fa ngeen nekk nekk fa ay doxandéem ngir ñu am jàmm ndaxte loolu mooy seen jàmm kon mbokk yi yal na leen yàlla sunu borom barkeel ci at bu bees bi te nag di leen wax ne ñun de njabootu Yeesu Christ fàttewuñu sunu mbokk yi Sénégal ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal Sénégal fàttewuñ leen ci ay ñaan ñi ngi leen di ñaanal ci jàngu yi saa su nekk di ñaanal kilifa réew mi saa su nekk sunu jàngu yi di ko def ci sunu kër yi di ko def ci sunu mbootaay yi saa yu ñu dajaloo itam ñi ngi koy def kon yal na yàlla sunu borom barkeel askanu Sénégal ci darajey ku sell ki ci darajey ki nga xam ne moom moo indi yiw ak yërmande yàlla ci biir jaam yi muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist yal na yàlla sunu borom barkeel at bu bees bi mu doon at boo xam ne buñ ci duggee ba génn ci danañ gis ne am na yokkute yu bari yu bari ci sunu biir biñ ci gën a xaar nag mooy yokkute ci sunu diggante ak yàlla sunu boroom wasalaam mbokki auditeurs yi ma leen di fàttali sama numéro de téléphone man pasteur Ahmed Fall di 77 0 74 35 35 képp koo xam ne nag bëgg nga am téere bu sell bi di biibal bi nga xam ne moom lañu yàlla sunu boroom jox ngir jàngal ñu ngir yedd ñu ngir yeeñu ngir jubbanti ñu képp ku ci bëgg a jot boo ma yónnee message wala nga woo ma danaa la jàppale ba nga am ci yàlla na leen yàlla sunu boroom barkeel ñun askanu Sénégal ci daraje Yeesu Kirist amin
هاليلويا الإله قدير المنون هاليلويا الرحيم أيها الحنان أنت مستحيل أيها الحنان آمين
عسلنا اليوم بتحليهم يدوم وحدهم عالي حب العقد الغالي
مبروك يا الخوت عليهم رباط الصعب جمعهم مبروك يا الخوت عليهم رباط الصعب جمعهم الرب هو يرعاهم يتمم وعده ليهم عسلنا اليوم الفرح ليهم يدوم وحدهم عالي حب العقد الغالي غالي غرسوا ورقصوا ليهم الفرحة تكمل معاهم غرسوا ورقصوا ليهم الفرحة تكمل معاهم بهجة وسرور نهدوهم كل قلوبنا تحييهم عشنا اليوم آه في الفرح ليهم يدوم وحدهم العالي حب العهد الغالي روح الرب يرشدهم تحت جناحه يظللهم روح الرب يرشدهم تحت جناحه يظللهم طول الحياة يقودهم هو يبارك مسعاهم عسلنا اليوم الفرح ليهم يدوم وحدهم العالي بحب العهد الغالي مبروك يا الأخوت عليهم رباط السعد جمعهم مبروك يا الأخوت عليهم رباط السعد جمعهم الرب هو يرعاهم يتمم وعده ليهم
فيه العالم ماشي أمن معانا غادي نعيط عليكم وننادي يا الله يا ولاد بلادي فرحوا الشعوب بالإنجيل نخرجوهم من ظلام الليل فرحوا الشعوب بالإنجيل نخرجوهم من ظلام الليل
عند المسيح نركع وعلى المغرب نتشفع عند المسيح نركع وعلى المغرب نتشفع نبكي على هاد البلاد نبكي على هاد البلاد وما فيها من العباد وما فيها من العباد حتى شفتك الميعاد ويتحقق المراد حتى شفتك الميعاد ويتحقق المراد على بلاد الظلام ترفع والخير يولي ويرجع على بلاد الظلام ترفع والخير يولي ويرجع
عند المسيح نركع وعلى المغرب نتشفع عند المسيح نركع وعلى المغرب نتشفع نبكي على هاد البلاد نبكي على هاد البلاد وما فيها اللعبة وما فيها اللعبة تاتي ايام جديده تكون فيها كنيسه مجيده تاتي ايام جديده
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
الروح